Cheikh Mouhamadoul Moutada nee na sant na. te cant gi itam. du tey jii la njëkk. ban la xamee ba tey. banu la xamee ba tey. noo ngi lay sant. ndax sa waajur Cheikh Mouhamadul Mourtada. ndax sa waajur wa Cheikh Mouhamadul Mourtada. léeg-léeg danaay tëdd fii ci sama néeg. léeg-léeg danaay tëdd fii ci sama néeg. man rek ak yàlla. man rek ak benn message. ma yëkkati benn message. nanga ma waxal sëñ Mourtada. na ma waxal Cheikh Mouhamadul ne ko bu ma ko war ba keroog ma koy fekk. ne ko bu ma ko war ba keroog ma koy fekk. ci yow ci yow mi laa jaarale message boobu. te sunu toogee maa ngi rek. ci ni nuy waxee. ci ni nuy waxee. damay jàpp ne. damay ne. dangaa déggul sama message boobu. déggoon li déggoon li ma wax. maa ko waxoon. maa yàlla te bi ma koy wax yàlla dong moo ma seede woon. waaye nag loola. waaye nag loola. may firndeel ne. la bis bu ma xëyee. sama bëgg. sama di gën a dolliku. di gën a dolliku. te laa yadurru. ku la bëgg du la lor sëriñ bi fii ci Kajoor dañuy wax ne ku des dese waaye menn mag teg xanaa bu ko nangoo waaye menn mag àddu ci xanaa ki des di dese bu ko nangoo yëg nañu ne yaw des nga dese nga des nga dese nga waaye nangu nga yenu yan bi. waaye nag nangu ngaa yenu yan bi. yan bi nag mooy fi mu ko bàyyi woon moom sëriñ bi. yan suuf. li tax may wax loolu. genn kilifa def ne. képp ku ñu dénk mbir. dem ba koy joxe. nga dem ba koy joxe. wala ñu koy jël ci jël mbir ma ci yow. nga tàllal ko joxe ko. nga tàllal ko joxe ko. ñu ne lii nag. ñu ne nga ne nii ko jote woon. nga ne ko na kooku jëlul dénk dara. ginnaaw yokku ca dara. changé wul itam doxinu jamono. changé wul ba man koo méngale ak loo xam ne. liggéeyam. day gën a gaaw gën a yaatu ndax képp ku la bàyyee dara yor ko téeméeri at bàyyee la ko nga ne na mu ko yore woon ni laa koy yore te jamono di walbatiku bis boo koy delloo mu mel nam la ko joxe woon boo xeebul sa bopp itam jamono xeeb la ndax defoo dara nun nag ba ngay wax. ba ngay wax. ca Kaolack. ca yàgg na. yàgg na. boobu Cheikh Mahmoudul Moutada mi ngi nekk jamono. nga ne fas nañu yéene. takwiin. takwiin. génération bu bees. génération bu bees. bu mën a jàmmaarloog. adduna bi fii mu jëm. ba nga koy wax. sa vision la woon. sa vision la woon. sa gis-gis. waaye nag. waaye nag bi mu agsee. ba joxe résultat bi. la xam ne. lii nga ñu doon junj. ta yow seex xam nga ci dara. man naa koo gën a leeral. fi nu tolloon ci jamono. doomu soxna. doomu su bindee ab kaamil. jébbal kañ ko war a jébbal. ñu jébbal kaamil ba kañ ko war a jébbal. mu yëkkati teraanga joxe. lañu ko jox. lañu ko jox. mu takk ci soxna. mu takk ci soxna. wut kaala. wut kaala. fas yéene dunde noonu. fas yéene dunde noonu. ba mujj mbir mi day xat. ba mujj mbir mi day xat. noonante bi bari. noonante bi bi bari. yow nag. yow nag. nga andi loo xam ne. nga andi loo xam ne. ku am sa diplôme. ku am sa diplôme. mën a liggéey. man a liggéey. mën a nekk ci diine ji. man a nekk ci diine mën a nekk ci jàkka ji. mën naa ko sëñ diw. kenn man de sëñ a sédd waaye kenn laa kii ni ah sëñ diw de bëggoon naa ko séddu cër waaye benn laa am. loolu jeex na léegi. nit ñi. civilisé nañu. ndax sa way juru baax wa. Cheikh Mouhamadul Moustapha la mu ko da nga koo wane ba mu leer nañu bi mu yore responsabilité am menn mag dafa ñëw Cheikh Moustapha ne ko Mbacke dama laa yërëm Cheikh Moustapha ni ko waa loo ma yërëmee mu ne ko xanaa Mbacke yan bu diis bi sëñ Modou Sani quoi dimbali ma ci yan bi kon mu ne nu ma lay dimbalee. mu ne ko xanaa nga yanul ma sa bopp tey soo ma sa bopp rek yan bi woyof waaye Mbàkke sa taxawaay fexe nga ba yan diisatul ndax gaa yi yëpp yanu seen bopp ànd ak yow yenu seen i bagage te bu ñu ko yenu woon ma yenu ko di sakki-sakki su ma mënee dem ñu ah pourtant sëñ Moutala jàmbaara de su ma fekkas taloo ñu ne xamoon nañu ko kon mbake maa ngi sant bu baax li may wax nag njaboot gi xam nañu ko ndax yàlla dogal na am nañu ndekki waaye man am naa reer yàqalu ma leen dara yàqaluñu ma dara te dañu may déglu te nag dañu ma déggal nag sañ na maa wax ne yéen ñi fi toog ñëpp. man leen sëñ maam Mor sama sëriñ a ngi nii waaye nag sëñu maa wax ne sëñ bi sama taalibe yaa ngi nii ndax amum taalibe looloo tax sëñu maa am taalibe waaye nag li taalibe def ñi ngi koy def waaye maa ngi leen di wax daal man daal sama sëriñ a ngi nii di xew sëñ bi nag ñii sama njaboot lañu sëñu maam nag ab taalibe boobu baat dama koy ab ba beneen yoon. jërëjëf Mbacke mbooloo mi sëriñ bi nee na asalaamualeykum wa rahmatullah ngi leen di nuyu di tàmbalee nuyoo bi ci Serigne Moutada ak nag njaboot gi yépp ak njabootu Serigne Mor Farouma ñu ñaan moom moomu di njaboot gi muy foo Serigne Mor Farouma Amar yàlla na ko yàlla dolli ngërëm amin Mbakke njabootam gam fa nekkal itam. gam fa nekkal itam. yàlla dugal leen ca amiin. ñaan. bu doon lu tuuti. kenn du ko defal ngeen gi mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa kon moom bu ñu ko dee ñaanal ngir dolli rek lay doon ndax foofee ñu nekk dara du fa doy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni ak yonent yëpp defal ko ay prérogative yu bari waaye teewul dem na sax ba ku ko ñaanalul ñu xaw laa sanctionné tuuti loolu rek moo tax waaye ñoom am nañ loo xam ne bu doon loo xam ne dafay jeex fa yàlla wala même euh, boog la muy joxe dana doy. maanaam dees na ca doylu. kon ñoom ñu doylu. loolu rekk moo tax. li ci des ñoo ngi nuyu Serigne Moutada. yàgg nañu fee ñëw. ñoo ngi ñaan itam. di ko gën di def. di ko gën bañ ca daan ñëw. wax naa ko ko ba tàyyi dañu daan dawal oto. di ndaw. di ñëw fii ci Gadeyelle. buñ fi ñëwee tamit la fi daan fekk mooy jom ak ngor akuk njulit akuk taalube kon lu fi nekk la ñoom nag ñu am ci tawféex ndax loolu liggéey ba am ko liggéey ba am ko yombul koñ ku ñu ko defal ba boo ñëwee. mën a dugg ca ndab la. boo boo waddul génn. boo doo ca génn. te ca ngay sax. te kon buñ ca nekkee ñoom. kon buñ ca nekkee ñoom. ñu daan ko seetlu ba ñu ndaw. ñu daan ko seetlu ba ñu nekkee ay ndaw. ba léegi. xam nañ ne mënatuñ caa ñoom kat mbir moomu mënuñ caa génn. mënatuñ caa génn. lim wax sànq nag ne. lim wax sànq nag ne. li ma fi fekkoon. mi ngi nii. mi loolu itam defe naa ne manees na koo déggee ci moom. ndax la ma fi daan fekk. bu dee ci kaw rek. defe naa. wuute na lool. ndegam kaw nag kaw gaa wuute. te ci biir lay jógee kon dañuy wax ne yéen wala fii wala yéen ajo wala xom sax nun nii noo ko wax dañ ne mujje poussé mu réer dañ koy dañ koy dañ koy bañ dañu koy bañ mujje poussé bu mu réer dañu koy bañ waaye defe naa loolu amul solo. njëkkee puso bi mu réer. mooy problème bi. tey waaye boo ko mujjee. bu réeréer sax. bu réeroon sax. kenn waru laa yedd. kenn waru ndax kenn soxlaatu ko. ndax kenn soxlaatu bi. mu mel ne kon. mu mel ne boo ko yoree. boo bi. mu mel ne boo ko wàccoon sax. mu mel ne boo ko wàccoon sax. kenn du la yedd. kenn du la yedd. ndax xëy na lañ ca waroon def def nañ ndax xëy na lañ ca waroon def ci puso ba def nañu ko ca. wala ñu def ne lañ ca waroon def def nañ ko ca. wala ñu def ne lañ waroon def def nañu ko ca. nga beesalaat ko. nga beesalaat ko. mel ne la nga cay ñaw. mel ne la nga cay ñaw. dafa wut sax lu bari. dafa wut sax lu bari. kon loolu. kon loolu. ay caaxaan du ko ay caaxaan du ko def. kon nag sunu ñëw fii ci Gadeyelle lu nu neex la ndax kat mënu mësuñu fee ñëw ba gis fi lu nu neexul alhamdulilah mësuñu ñëw Gadeyelle itam ba fekk fi lu soppi lañ lañ jàpp ne moo fi newoon. ba gis fi lenn lu soppi la ñu jàpp ne moo fi newoon. donte fekke wuñ ko sax. donte fekke wuñ ko sax. muy lu baax la rek. muy lu baax la rek. ak la leen seeni waajur bàyyeeloon. ak la leen seeni waajur bàyyeeloon. kon nag sëñ Moutala ñu ngi koy ñaanal ak i bokkam ndax ni ñu leen di gisee. ñu xam seen bopp ñu xam seen bopp lañu. xam sa bopp nag. damay wax ne day gën gëm wax ne day gëm day gën gëm sa bopp. boo ndax boo xamee sa bopp. boo xamee sa bopp da ngay nekk ca la nga ne. ca la nga war a ne. ku la ci fekk. ku la ci fekk. nga jàpp ne rek da ngeen da ngeen caa tase. nga jàpp ne rek da ngeen caa tase. ku la ci fekkut it. ku la ci fekkut it. nga jàpp ne dafa nekk ci leneen lu gën la nga ne. nga jàpp ne dafa nekk ci leneen lu gën la nga ne. boo deful noonu nag. boo deful noonu nag. boo gëmee sa bopp nag. ku àndut ak yow ku ne. nga defe ne sab noonu la. ñoom nag ki seen biir. ci ni ñu koy gisee. xam seen bopp lañu ci gis. mooy koo ci gis rek. gis nga kaca des ci mbokkam. te musuma cee dégg kenn. kenn ku wax ci mbokkam dara. lu dul lu baax. te fépp fu mu nekk nga fekk ko fa. loolu nag bu ne àdduna meloon. jafe-jafe du bari. kon jafe-jafe du bari. dëgg la Mbacke waaye fu ñu tuddee sa mbokk. boo gëstoo gisoo ko. boo gisee boo gisee gisoo koo jàpp ne dana ko nettali. boo gisee boo gëstoo gisoo kenn koo jàpp ne dana ko nettali li nga wax. nga wax leneen lu bokkut ak la nga koy wax boo jàkkaarloo. nga wax leneen lu wuute ak la nga xam ne boo jàkkaarloo moom moom ngay wax. loolu. loolu. nit du ko def. nit du ko def. ku gëm itam du ko def. ku am aw fit itam du ko def. ku gore du ko def. waaye gis naa ne. waaye gis naa ne. ñoom ñii dey damay tooñ sax damay faral ñeen di doxe am na loo xam ne bu fekkoon te ca biir. am na loo xamante ni bu nekkul woon ca biir doxin woowee. dañuy defe ne seen bopp rek la. téye seen waaye da ngeen a téye seen bopp ca biir. di yaatal ci biti. di yaatal ca biti. ba tax na. kenn mënu leen a tànc ci seen bopp. kon ba tax na kenn mu leen xàñ ci seen bopp. lépp lu ngeen am. ak lu ngeen nekk. bu ngeen bu dee seen bopp bu dee seen boppit it. mën ngeen caa dugal keneen. mën ngeen caa dugal keneen. loolu nag la ci loolu nag beneen niveau la ci nit. kon nag sëñ Moutala ñu ngi leen di gërëm di xam ne ñëw gi moom dañ ciy sawar lool ndax defe naa ne bañ ko daree def wuute naa léegi lool booba ay ndaw lañu te ba léegi nañu ko daan defee ak yéene jënu ca doon am tey jii lañu ko gën a am te bu dara soppikoon duñu ko ñemee sax soppi. waaye mën nañoo am lu waaye mën nañoo am nag lu ñuy ruumandaat. waaye nun duñu ko def. duñu wax mukk ci kaw. di wax ci suuf. loolu as gor du ko def. waxumala nag boo gisul dara loo mën a wax loo xam ne. nag boo gisul dara loo mën a wax loo xam ne. lu dul lu baax rek. kon jërë ngeen jëf. yéen mbokk yi. noo ngi leen di sant bu baax. nii ngeen di def fu ci nit gis mbokkam gis ka ca des fuñ ci gis dara xew fa yéen ñëpp ngeen mel na genn jëmm jee bariwul lu ñu ko seetlu ci yeneen barab loolu nag ay qualité la yoo xam ne boo ca boolee doo wax ci sa mbokk loo koy nëbb. doo wax ci sa mbokk loo koy nëbb. loolu bokk na ci li mën a defar àdduna. loolu bokk na ci li mën a defar àdduna. kon ñoo ngi leen di sant bu baax. di ñaan yàlla mu def fi jàmm amiin leen ko. def ko ci réew mi. def ko ci nit ñi. nit ñi. yàlla dimbali leen ñu gëm. leen ñu gëm. te nag bàyyi xel ëllëg. cey. sànq laanaan ci oto bi. may wax sëñ Moussa ñoom ci oto bi. ni leen dafa mel ni alaaxira. yàlla li mu koy tudd ci alxuraan bari na lool. te bu tuddee bu ko tuddee da cay boole. ñi ko gëm. kon dafa mel ne gëm alaaxira yombul ndax léeg-léeg nga gis ci doomu aadama. nga gis ci doomu aadama. doxin woo xam ne. ndax jàpp na ne. ndax jàpp na ne. waxtu wu ne. mën naa génn. mën naa génn àdduna moom doomu aadama bi. nit koo mën a gis. nit koo mën a gis. ferental rek. ak jëlale waaye waxtu wa muy bàyyi ñu àdduna moom mënu koo xam allah te nag àdduna gi mën naa am ci waxtu wu ne kon nag nanu góor góorlu bu baax ci bàyyi xel ëllëg yàlla jaamu ko jëriñu ko dara dafa bëgg di nu xool te nag xam na nu sax nag waaye dafa bëgg nuy xool sunu bopp moo tax nanu jéem a nekk ci lu baax adduna xam ko dafa nuru lu yomb nuru it lu jafe waaye yombul jafewut moom xam àdduna. boo bàyyee xel ëllëg. boo bàyyee xel ëllëg. kon jëfewut ci yow. boo ko bàyyiwut nag. jafe na. kon nag nekk ci lu baax rek. te ci jëmm yu tedd yi sos barab bii. ndax bu dul woon dëgg. lu yàgg. wala boog du sax bari na ñu amoon doole lool ci kajoor fa ñu newoon kenn xamatu ko dëgg la kon dëgg dafa newul woon foofee yàlla it bàyyi woon leen ak seen bopp kon nag loolu lépp dañu koy bàyyi ci barab yii ku fi ñëw nga xam li la indi ci barab yii xam ne man nga fay jëlee lu bari ci lu baax lu bon nag amu fi waaye nag boo ko fi bëggee indi nag xëy na dana la xaar ca biti xëy na dana la xaar ca biti ba ngay dem mu àndaat ak yow allahu akbar kon nag nanu góorlu bu baax jaamu yàlla nekk ci lu baax dimbale ñu ñuy roy ba bu ëllëgee ñu bañ leen rusloo kon nag ñoo ngi sante bu baax a baax jërë ngeen jëf salaamualeykum wa rahmatullah ah balay si buri sëñ Mbacke Mara. amiin ya rabbi amiin Mbacke.